war a masawu coono yéen le peuple sénégalais parce que Macky Sall ñëpp la sonal ñëpp la tëj kasu mais c'est normal parce que yaa cinq ou six ans de cela ñun toogoon nañ ci micro yi di wax di yuuxu pour sénégalais yi dégluñu que Macky Sall mi ngi tooñ tooñ bu méttee métti benn nitu yàlla bu tudd imam Aliou Badara Ndaw mu jàpp ko tëj ko en prison ñetti atu yàlla ñu yëñ ko terroriste presse yi tey presse yi yëpp presse écrite bi bu ñu xëyee di revue de presse imam bi fekk na ay ay portable satellitaire imam bi fekk nañ dafa yor ay terrain d' entraînement fekk nañ ci moom ay armes ay même jeune Afrique sax da doon bind si loolu imam bi 4 heures du matin lañ ko fekk këram du mu jug ci di ko di ko di ko répété 4 heures du matin tas seng yi mënute ko di tuur saaku ceeb bi xam lan lañ doon seet mënute imam bi ci kanamu njabootam plus de ay 2000 ndongo xale yi di jooy ñu takk imam bi yóbbu ko ñetti at la toog gisul njabootam ma toog wax naa ko fu nekk si boo leen bëggee xam dafa leen vaar ngeen xool vidéo yi ma ni Sénégal mi ngi jàpp imam Ndao parce que nee na da ko te xeex terrorisme kon suñu tur la koy jàppee ñun ñooy fay juge yi ñooy fay Macky Sall suñu tur la ko jàppee mi ngi toroxale imam bi Sénégal yëpp di seetaan terroriste la ji ñoon imam tey ñëpp ji ñañ leen terroriste jaakatu jën yi terroriste lañu journaliste yi terroriste lañu jaakatu caaf yi terroriste lañu sëñ ñëpp nekk nañ terroriste parce que nit yàlla lañ tooñ te nit yàlla bu ñu ko tooñee bu askan ñëpp lay dal yàlla buy dóor moom nekk natt ci ñoom mu nekk mbugal ci ñoom moo tax affaire imam Ndao moo tax man ma waxoon ni lii mënuñu bett Macky Sall mujjee fi ak Sénégalais yi donc moo tax arrestation booy cité ay tur sax di wax naan dañu arrêté Thierno Sall suñu frère la nitu dëgg la leader la boo ne Ousmane Sarr yàgg nañ ko arrêté Thierno Sall yàgg nañ ko arrêté nga ni Bayna Gueye nga ni Mansour Diop ak lu mën a am en réalité après di nga cité ñeneen pour wax nag si euh, fi may daanale ci détenu yi ci maman Amidia parce que maman Amidia man personnellement man dama ko seeti woon parce que ñun bi ñu defee 4 mois de prison dem seet dem këram gis yaayam def interview foofu jóge fa après moo dama dem prison seeti ko dem seeti maman Amidia quoi ku nekk Sénégal dañu ni fàttali lan moo waral arrestation maman Amidia cinquante mille francs lañ ko envoyé wave bi ñu ko envoyé cinquante mille francs yi mu koy envoyé beneen booy Pastef lool lañ ko jàppee ni ko financement terrorisme maman Amidia def na deux ans ci prison bi ñaari atu yàlla jigéen bu am ay doom jigéen ak ni mu mel am ay doom ñu jiñ ko force spéciale ku ne xam nga luy force ñu tëj ko ci kaso bi Mame Amady Dia def na deux ans damay nekk ci prison bi ñoo man non ma xalaatee ma concevoir sax di añ di lekk di nelaw Mame Amady Dia nekk ci kaso bi quoi ay Sonko ñoo xam dañu sacrifice seen a nelaw sax tey même pas dormir parce que góor gu ngeen bokk ñu bokk ñun ñëpp nit ci xeex ba ëppale rek ci na li ñun souligné di wax Macky Sall ne balaa muy dee bu dee si ay loxom dara du ko ci génne dara du ko ci génne dara ndax ñi ñu war a jàpp mooy sàcc yi les voleurs ñi détourné fonds public bi ñi sàcc àllu réew mi ñi nax sénégalais yi anytime taxaw ci tele bi di wax keroog gis ngeen ko yenn journalistes yi ministre de la justice dafa taxaw jàkkaarloo yéen di fenn fenn yu leer nañ daan ne Absa Absa comment ça non Absa journaliste Sénégal bi Absa an ne policier yi dóoruñ ko lu ne fàng nga ne amul loolu insulte la ci peuple bi nga wax cest à ñoom dañ dem a en réalité ñoom xam nga mooy nga taxaw di fenn ñi ngay wax ñi ngay waxal xam ne da ngay fen nga dem ba xam ne yow nga xam ne yow da fen mais nga continuer di fen nga xam ne ñi ngay waxal xam nañu da ngay fen cest à loolu en yow nekkatoo nit loolu leneen la du affaire nit donc yooyu ñun ñoo ko war a mën a xeex mu dañ te ni koy xeex mooy il faut ñu taxaw parce que benn a dellu ginnaaw tuuti te xeex bi foog si ferme sinon rek duñ ci mos a jógee donc loolu daal laa bëggoon wax si détenu politique yi léegi damay ñëw si beneen bi mooy dialogue que je pense que ay points yu ma énuméré vite euh, bi man li ma wax si dialogue dialogue dialogue national la mais tour de famille la quoi en réalité du dialogue mais li ma si expliqué c' est très simple man ñaar laa ci déployer bi jiitu mooy d' abord mën naa juum mais dama jàpp ni en réalité opposition bi dañu waroon dem si dialogue bi dañu waroon imposer Macky Sall forme dialogue naka la ñuy dialogué maanaam Sénégal actuellement amatul président il faut gars yi bàyyi ay non le avril du 2 avril c'est-à-dire day officiel rek quoi le avril mais. élection présidentielle bu xasee bu ubbeeku Sénégal signature yëpp la war a bloqué dara doxatul Sénégal amatul président actuellement Sénégal amatul président kon ni mu doon waxee ex ex président Macky Sall n'est plus le président du Sénégal donc yow mënoo nekkatoo président ngay taxaw sari ngay taxaw yow di imposer nit ñi ay forme de dialogue parce que dialogue ñi koy def mooy ñi déggoowul moom ñi fa nekkoon wuy ji ko yëpp dañoo déggoo di ñooñu li ñuy dialogue amuñu problème lan la ñuy dialogue foofu alors opposition bi waroon imposer Macky forme de dialogue ne nii lay demee nii lay demee man dama gëmoon Macky Sall dafa waroon toog ci publicu dialogue bi il n'est plus président du Sénégal maa ngi moom a yem dafa waroon toog ci publiku dialogue bi ñu dem jëli man loolu laa doon proposé ñu dem jëli évêque bi évêque bi yónnee benn kilifa ci eglise bi sëñ Mountakha yónnee benn kilifa ci Touba sëñ Mbaye Sy Mansour même chose jàngu bi bois sacré bi ñoom ñëpp ñu toog ci taabul bi teg ay points yu énuméré Macky taxaw fi nit ñaxtu di expliquer li ñu bëgg mu taxaw foofu noonu parce que Sénégal Macky Sall mënu ko moom quoi taxaw bëgg nekk président mandaam jëf mu ne day nekk président loolu mënul nekk ñun duñu ko accepté léegi nag Macky Sall ñun li ñu dal dañ ko bàyyi xew mi quoi par exemple dañ ko bàyyi xew mi ngénte gi lañ ko bàyyal yàq na laax yi xajamal na genn wàll gi ci soow mi laax yi def jox na ko ay mbokkam ci ngénte gi ceebu yàpp bi añ bi yàq na ko léegi reer bi des mu ne ñu ñu dal ko bàyyi ak reer bi loolu c'est pas normal parce que li des ci Macky Sall mooy li mu fi ndara bàyyi nan la ko fi bàyyee loolu c'est très important ñu bàyyi ko xel parce que dialogue certes amul musul woote dialogue ci àdduna mi ngi soog a woote dialogue mooy bi mu waree dem parce que dialogue moom que Sénégal dafa am ay texte dañu am constitution moom ay texte yoo xam dafa leer bien rédigé point A jëm à Z ñëpp xam lii lii la texte yi di wax kon bu ñu demee ba ñàkk respecté texte yi tax ba léegi chaque fois problème dialogue moo koy réglé rek mooy kon yow da échec mooy accepté nga da échec léegi nag ñi muy dialogueel moom pour pour porte de sortie ñoo waroon teg yan condition la ñuy dialogué lii lii lañ bëgg si dialogue bi moom day taxaw ci public bi parce que Sénégal ba tey da ngeen accepté comme président Macky Sall plus le président du Sénégal il ne l'est plus faiseur de malin la dafa am programme am agenda am la di ko dérouler te chaque fois Sénégalais yi dañuy nelaw Macky Sall day réussir parce que dafa moom moom bu nekkee ci tey yéen ngeen nekk ci tey di wax fekk moom mi ngi ci suba pare na moom instant yi dépassé na sax mi naa ci ñuy gëm ni Macky Sall du bàyyi nguur gi du def du teg ay élection lu ma gëm la xaw ma nag luy am yàlla moo xam su ko defee dina ma bett parce que le pouvoir rend fou mais la fou ne rend pas pouvoir il rend pas pouvoir du ko joxe te loolu il faut gars yi bàyyi ko xel bu baax a baax a baax sénégalais mettre ko xam ne ko on t'a à l'œil parce que ku bëri caaxaan la ñëpp nañ gis nañ kaawu Alassane Ouattara gis nañ ah, ah, gis nañ Alassane Ouattara parce que sénégalais yi bu ñu yàggee dañuy dem si élection yi négligé bàyyi ko comme ni ñu boycotté dialogue bi boycotté leneen boycotté leneen day continuer demeurer fi di nekk di nekk président ba faw te bu ñu ci dugul mënu nekk parce que Macky Sall dafa bari dama ñëw si sànq benn point boo xam ni euh, suñu mbokku Blaise en tant que chrétien si mouvement Nittu Dëgg moom suñu neen ko muy église catholique bi en prison bi ma nekkee en prison l'église catholique dialogue bi njëkk a am soi-disant dialogue bi njëkk am prison la ma fekk mooy bi Ahmed Khalifa Niass taxaw di wax naan ko gëmmal dóor sëñ nu mu tudd euh, ki nekk Fass Seydi Djamil nekk fa di théâtre naan damaa cëpp na cëpp tëbat ñuy théâtral Macky Sall ko en réalité te boo dañ ne bi ñuy commencé dialogue bi dañ ne les hommes religieux d' abord ñooy njëkk ibbi ñaan ñooy jëkk a wax pour te dire que la religion est très importante lu ñuy foowee ñun diine rek moo ñu ñor ñun lu dul diine diine moo ko gën ñun les musulmans ñi ñu fa représenté ñun soi-disant musulmans ñi ñu fa représenté ñun Ahmed Khalifa Niass la woon ak Sidi Jamil Ahmed Khalifa Niass nekk fanaan ay gëmal dóor Sidi Jamil di wax damaa cëpp fii ne waat cëpp dalaat fee dalaat fii teg ñu gàcce quoi teg gàcce suñu diine bi ñu taxaw foofu point ñu taxaw fa parce que Sénégal tamit il faut moom ñu wax ñu waxante dëgg xoolante ci bët ñu waxante dëgg quoi église catholique bi ñu demee taxaw foofu ah protestants yi ñoo fa nekkoon seen discours man Abdou Karim Gueye je suis musulman mais wallahi al azim naa dégg gëj naa dégg man ci gémminu ñiy woote woo musulman fii di woote ay kilifa diine wala ñu dem si kanamu Macky Sall ah, waxu yoon ci Àlla Muhammad man yoon ci Àlla Muhammad maa ngi koy gis ci chrétiens yi man discours bi maa gis ci protestants yi il faut aussi Sénégal yi ah chrétiens yi dañoo rawee lu bari li ñu rawee xam nga lan la mooy chrétiens yi bàyyiwuñu seen doom ak tubaab yi ñoom école catholique boo dem église baa ngi si wetam dañu jàngal booy yi ñoom jàngal seen doom yi catéchisme di leen toppatoo bàyyiwuñu seen doom ak tubaab yi ñun suñu religion musulman yi ñun ñun toppatoowuñu si dara on a des sérieux problèmes pour mën a sax fexe faye suñu doom pour mu dem jàngi ah, ah, ah, franco arabe boo xam ne somme bi day dem ba ay 35000 45000 amul benn subvention bi def ci loolu amul dara lu def si ba ñoom seen i doom bàyyiwu ñoo nekk tubaab yi yar leen gis ngeen fii ñëpp a koy wax naan tubaab yi boo leen seetloo chrétiens yi ni ñu mel dañu yaru duñu wax ci kaw loolu en fait en réalité ñoom dañu yar seen doom ci seen diine te ñun nekkuñu ay julit ñun kenn gënu yoon ci Allemagne moo gën ñëpp ku ko topp kenn du la gën mais problème bi mooy ñun dañoo yaru suñuy doom suñu diine suñuy kilifa dañ fi nekk seetaan diine bi croiser les bras yemale ko ci seen i kër on a rien fait pour diine bi dugg ci école yi dugg ci yi diine bi dugg ci béréb yoo xamante ni mooy tax ba tey état bi am si àq ak wareef ak yelleef mën ñu nekk majorité ba noppi di cotiser ci contribuable bi te ñun suñu religion mënuñu ci gis suñu bopp loolu moo taral mooy feeñ ci ñun mooy feeñ ci suñu doom yi ñi dàqa fenn ci fii ci sab ay musulman la ñu woote woo ñi fi gën a ñeme yàlla toog ci politique bi di wax naka suñu doon ay musulman la ñu woote woo dañ koy woote woo mais ils sont pas musulmans quand même mais chrétiens ñoom ils sont des dañoo nekk ay catholiques mais ñun nekkuñu ay jullit moo tax ñoom ñu gën ñu nekk nit parce que religion bi ko topp da nekk nit donc moo tax ñu bëri ñu ngi expliqué di wax di dingat di expliqué naan non euh, ma dégg Moussa Diakhaté li muy wax laa fa parce que maa ngi dégg euh, Blaise di ko wax léegi di ko souligné Moussa Diakhaté moom man li ma am pour wax rek mooy c'est-à-dire dafa dafa am genre nit yoo xamante ni kenn waru jox parole gàcce la dafa am ñoo xam ne ay gàcce lañ gàcce Moussa Diakhaté euh, su ma waxee baat bi dañuy foog dama saaga mais du saaga imbécile feebar la feebaru xel la mooy ñooñu di màgg te seen xel yi màggul <laughs> loolu mooy imbécile non imbécile feebar la ko dafa am ñoo xam ni dañuy màgg mais seen xel du màgg Moussa Diakhaté xelam màggul dafa tardé te Macky Sall la ko dàq ci parlement bi jëlaatuñ ko def ko dara amul benn responsabilité ci réew mi nekkul dara lu dul benn kenn koo xamante ni Marème Faye Sall moo koy gidé di ko télé gidé di ko wax lan lay def foofu la mujj moom loolu la nekk après toog di taxaw di saaga kilifa diine jàmbur à chaque fois dama koy wax respecté leen ngëm-ngëmu jàmbur yi communauté chrétienne bi wax dara lu aay amul sañ-sañu taxaw di di di wax loolu xalif généraux yi naan di traité xalif généraux yi mu dem ci ku toll ni monseigneur bi di ko traité hypocrite fan la ko teg xam ne loolu lan la mën def fitna ci réew mi Moussa Diakhaté lan la ban njëriñ la amal Sénégal bay saaga diine jàmbur Sénégal moom diineem sax xamu ko mais nag du ñu metti parce que yoon Thial Mohamed la njëkk taxaw ne moom ay waajuram ñoo gën waajur yoon Thial Mohamed hmm. donc kon moom bu saaga catholique yi ñu nañ xam ni kon moom mooy imbécile mooy ñëwaat rek quoi du nitu dara amul benn njëriñ Sénégal te dañ ko a stoppé dañ ko a arrêté te damay di saaga kilifa catholique yi dañ war a porté plainte procureur bu autosaisir ñu porté ko plainte tëj ko ci kaso bi moom moom moo mérité kaso yi ñuy tëdd ñun yi booba léegi alors je pense que euh, li may wax ci dialogue bi vite fait après dialogue bi li may daanalee ci dialogue bi rek mooy euh, presse sénégalaise bi Macky Sall dafa wax ni ne ne presse bi ñoo koy ñoo koy yàpp quoi ñoo koy ñoo koy ñoo koy diaboliser et tout mais man j'ai dit une chose est claire ah Macky Sall musul respecter presse sénégalaise ndax vous vous rappelez yéen Macky Sall bi muy soog chaque fois buy wax français wax yee wala presse internationale lay jël di wax xanaa tey tey comme ils l'ont lâché comme un chien dañ ko bàyyi comme xaj moo tax mu taxaw ne mu taxaw naan ay euh, presse sénégalaise presse internationale dañ koy diaboliser parce que àndatuñu ak moom moom moo fay mission am mais c' est tout à fait normal c' la logique des choses parce que Macky Sall mënul def li mu fi def yëpp après après toroxal imaam yi tëj ay imaam ñi ñi di dee ñi ñi dem si gaal yi di dee ñuy rey ay ni bëgg ci génn noonu naagis kon suñu kurisi ak suñu jaamu yàlla yi kon ñun kon leerul alors ñu ma ñëw si si euh, beneen point bi mooy amnistie bi en parlant de l' amnistie man damay wax gars yi souvent ils expliquent ku ne di wax quoi mais man amnistie bi man garaawlu ma ko quoi xamul nga amnistie loi la rek amnistie loi la dañ koy voté mu dem mais ñu dem voté waat beneen loi dindi ko yaa quoi même fu mu nekk ci na ñu loxoti ko indi.